Bienvenue sur Salam Vision. libération xëy demal ñu tey ca ngajaga ngajaga di fa teenab gaz bi ne woon jëppet tàkkab diir bu yàgg laata ñu koy soog a fay di teenu gaz bu kërug liggéeykaay gi di Forteza Forteza moomee nag waa ngajaga gërëm munu ko dem na nañu sax ba joxoñ ko ci ne la mu bëgg mooy toxale leen fa nu sancee yamunu rek ca suuf sa nga xamante ni fa la nu ne ci nettali ci libération soxna suñ naan ay satu saw moom mu ne ba borom këram làqoog léegi dañ koy yëkkatee fa mu dëkkoon ndax dalal direction Forteza Gallo Ndiaye moom gis ne Forteza yamul ci suuf sa sancee rek waaye dëkk ba ci boppam la yóotu jumaa ja sax ñu ne bu nu sañoon ñu toxal ko fa ndax jumaa ja daa toog ci teenub gaz mbay gajaga ne tool ba mu donnoo ca bàyyi ja moom la ñu nangoo ci moom Moussa gajaga mel ni ku naan waaye gisuñu dara seen àq dal na leen ñoom Forteza ndax teen bi xamuñu sax lu ko taal ci gis-gisam moom mbay gajaga jinne yi ci boppam ñoo taal teen ba boobépp yaakaar nag bu tas ci waa gajaga yàlla bu mu dal Sénégal ci samxal gaz bi war a togg courant bi ca du teg xeer bu njëkk ba démb ca Cap des Biches ak xewu rëy yaakaar ci wàllum xëy waaye wàññite ci njëgum courant kaay bi di laas ne privé national bi maanaam boromi koppar yu fekk baax fii ci réew mi ñoo ànd dugal ci seeni koppar Arona Dia Cala Abdoulaye Dia Séniko Khadim Ba Samuel Sarr Sud Quotidien ne centrale bi ñetti téeméeri mégawatt lay togg ci courant ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaari milliards moo ca dem Sénégal di dalloo tey ak dalal nag njiit lu bees bu l'armée nationale am nouveau CMGA général Cheikh Wade observateur gëstu démbam ay jaar-jaaram fa mu fekk baax ca ngay mexe ba ciy seede yu ko waajuram bu jigéen defal ñu des ak observateur mi mel ni ku naan coowal Ousmane Sonko Adji Sarr fay na de waaye feu rouge naka noonu fay nañu fépp ci ndakaaru ak wuyu yi nga xamante ni ci jamonoy manifesté yi ñoo ko yàqoon ya xeet yàqu-yàqu yi nag yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne xayma nañu ko ci ñetti téeméer juróom fukki millions li gën a métti du yàqu-yàqu ci wàllu matériel waaye bakkani ci rot les échos ne Amnesty fas na yéene nag topp mbiri ci yoon am Amnesty mi xayma paatu gi ci fukk ak ñaar ñeenti téeméer ñu ami gaañu gaañu am si jël fukki avocat ngir fayal njaboot yi bëgg a topp mbir mi ci yoon donte nag am na njaboot ca àndul am na njaboot yoo xamante ni ñoom danoo faf ba lépp ak yàlla dañuy des ak les échos ak loi bi ñeel toxalug wote local yi jàll na ne bataaxal ñu ne ci poste démb ci assemblée nationale yéene kaay bi ne lu ëpp fanweeri député teewun fa woon de ci projet de loi bu ni amee solo kàngami opposition bi ñii teewunu ña teewoon mu ne mel ni muuma ci yéene kaay bi di la mandat Barthélémy Dias moom di ci wax xalaatam ci li waral président Macky di guddal jël mu a du bari source a moom tey bël ba ca ndar la xëyee ak liggéey yi soxal bël boobee yéene kaay bi ne président Macky Sall àndul woon ci njëlbeen ci li nga xamante ne mooy ak tàmbali ñeel liggéey bi lu may danoo def étude yu wér maanaam jàngat yoon yi nga xamante ni fa lañ war a jaarale liggéey bi laata ñuy sumb bépp liggéey Cheikh Issa Sall directeur général ADM ne waaw position bi gën a màndu gën a am solo mooy bu président de la république ca nag mu ne ñoom waa ADM sax bëggunu woon defab liggéey boo xamante ni ay njuumte da cay lalu ñu baaxee ko nguur gu Sénégal liggéey xam-xam moom président yeesal bëgg it ay yeesal waaye ak yoonal ci liggéeyu tasam xibaar ci réew mi ci la tribune ma nga ca naan nanu baral jéego yi ñeel li nga xamante ni mooy yeesal ni ko code de la presse moole méngal it ak jamono yori nu kër xibaar yi wékku ci nguur gi naka noonu it daal di tëggaat loi bi ci wàllum publicité président de la république ci le soleil yittewoo su weesoo presse bi wàllu napp mi yéene kaay bu àdne dina ci jiiteem ndaje di conseil présidentiel ci weeru mai wàllu gu yaram l'hôpital la Dantec soxla ko ndax l'hôpital bu bor bu diis moo tegu ca ndodd ma rax ci dolli it koppar yi fa daa dugg di recette yi wàññiku lool ak i chantier fu ne ca dara yeggagu ca wér yaram gi ci la ñuy des ba tey ak doomu jàngoro bi di corona enquête fësale nataalu professeur Didier Raoult yéene kaay bi ne moog naatangoom bu Sénégal professeur Souleymane Mboup seen i gëstoog liggéey yëpp jamono yi mooy fexe xam fu variant yu bees yi ci Sénégal soqi ko variant yi di melokaan yeneen bi jël professeur Raoult cib ngan ci Sénégal na France di Emmanuel Macron mel ni ku koy dëggal ndax moom ci boppam nangu na ne yëf des na ba tax mu tëjaat waa France ci confinement diirëb ñeenti ayu bés yeneen di weer le quotidien moom xëyee diggante bu ratax lool lalu ci taarix ak démb muy bu Gàmbeeg Sénégal waaye mel ni fan cat da caa dugg ba yëfe faf gëmm lu ci mën di am ambassadeur Sénégal ba ci Banjul Bassirou Sène mu ngi xamal ñaari askan yi ne pexe beneen amul lu may ñu dëkkandoor maanaam kenn a naam mëne su la aliwu Aliou Cissé liggéeyam ak résultat am waaye nag ab diire ngi mu ne équipe nationale saful géej saful yéet duy occasion yu ñu créé du football bu tar ca rafet lépp a gëmm mu ne Ferdinand Coly ne wóor na ko ñu jiite équipe bi seen bopp sax suñu wéetee nangu ne yëf yi daal gëmm na faw kon mu ne ñu yokk xereñ gi dem jëli coupe bi Cameroun ndax loolu rek mooy objectifu Sénégal joueur itam Ferdinand Coly jox leen seen wàll ndax mu ne waruñu xëpp lépp Aliou Cissé ñoom ci seen wàllu bopp bu système amee ñooy ñi ko war a jëmmal ñoo war a football ba yaacaaral gi record ne li ko ëlëm rek mooy footballu Sénégal moom bu dee xayma ay statistiques ak yooyu résultat lépp a baax waaye football bi ci boppam moo saful dara stade yéenekaay dafa laaj ni ndax mënees naa compter ci Aliou Cissé ngir gagner Coupe d'Afrique maar day taali waaw tribune yéene kaay ne ay coppi ci jëm ci wàllum secteur de média yooyee dama la président Macky Sall kay waaw la mu bëgg nag mooy ñu accéléré coppite yi nga xam ne kon namm nañ ko di wàllum réforme day ci code de la presse bi looloy dëgg waaye itam yori nag entreprise publique de presse yi ñu daal di koy defar ba méngoo jamono maanaam moderniser ko waaw président Macky Sall yemu ca la loi sur la publicité loolee ca parce nag ma ngay waajal wàllum justice bi nag exclusive yéene kaane ni Sénégal di doxee day ki fi nekkoon bâtonnier maître Mbaye Guèye waaw jël na loxoom dóor ci dëndam ne justice su Sénégal bi nekkul ci crise day maître Mbaye Guèye ne waaw parce que bu dee dafa nekk ci wàllum crise day moom justice bi jàppal leen ne loolee kon nekk fi lu bees kon xanaa justice bi depuis jamonoy indépendance la maître Mbaye Guèye mooy wax du samay kaddu de direct news ne procureur Alioune Ndao day waaw waaye di koy dàq ah, Touré daw day mënu fee bee sal tax tax tax tax tax ci ndoodug askan wi lée wala nag di jéem a dox ci mer gi nga xam ni kon askan wi daal dinañ koy mer ni le ngir seetal boppam ba set wi loolee mënta ne yéeni kaay ba jogoy fay bi ne gis nga procureur Aliou Ndao moomee waaw mais moom hésité wul woon sax déedéet daal di tuumaal Karim Wade mi ne waa daa am alal joo xam ni kon dafa leewul di enrichissement illicite mbir ma tolloo benn milliard ci euro la ilaha illallah procureur Ndao gàttaw gàttal daal moom nangu na ne kon gars yi dañ koo jàppee woon ni xuus ma ñàpp Dakar Times ne gisee Karim Wade moomee Sall waaw Bougane Gueye Dany day la mu d'accord mooy ñu ate waat xoolaat seenu ate bi lée révision procès ba waaw waaye Bougane Gueye Dany d'accordul benn yoon ci ñu daal di leen setal amnistier leen baal leen waaw le témoin yéene kaay ne gis nga ëttu politique bi nga xam ne nag maanaam dañ koy toogaat ba mu ñor xom waa diggante Ousmane Sonko Karim Wade ak Khalifa Sall waaw kan moo nar a lekk-lekk gi nag critique yéene Sonko kay rey nañ ko ni Dominique strauss a Ousmane Sonko mi lée te duñu ko rey njiital Pastef ci boppam xam la woon na fi ne gis nga gars seen complot bi maanaam yàq deram bam ne wiskin waaye nekkul ne pour ko ci biir kaso bi la non non non en de protocole bi day vox populi na moom ci biggee njaay waaw toppandoona Sonko de demul wuy ji de déet nee na daal ab convocation bu ñu ko bindal ni lay mooy tax mu wuy ji waaye ay téléphone rek kaay wuy 24 heures yéene kaay ne Serigne Samad Mbacke day mi jógee ci Ousmane Sonko Touba dem ci Macky Sall APR eh way ñaari nit dañu koo financé jar ko ngir muy déstabiliser laa lay wax nii Ousmane ci Touba waaw Pastef Touba yemuñ te dee déedéet nee nañu seen coordonnateur bi day jox nañ ko juróom-ñetti fukki millions laa la wax 80 millions ak passeport diplomatique ngir mu bàyyi Ousmane Sonko dem ci ñoom mu lànk 24 heures yéene kaa gis nga ak ak yelleefu doomu aadama yi day ci Sénégal gi waaw Sénégal dee boole nañ ko nag ci violeurs yi dañuy violer rek ak ak yelleefu doomu aadama yi bu ñu sukkandikoo ci njiital diplomatie bu Amérique ci boppam laa la wax <laughs> waaw xañ doomu dund waaw ay doomu aadama ci lu jaarul yoon ar di taali américains yi ñooy wax de moo tax Adama Gaye journaliste day waaw nee na gis nga ci histoire rapport annuel lu gars yi Sénégal mosuñu koo toroxalee nii la wax nii wii li pande ko jéebaane koog askan wi boole koog addina waaw léegi ko yéene kaa lu jëm nag ci wàllum justice day ak manifestation yi waaw waa amnesty nee lu tolloo fukki doomu aadama ak ñaar la ñu ci manifestation yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñeenti yoo xam ni kon am nañ ci ay gaañu gaañu allahu akbar ko da ca diwaanu Amérique la waaw daal di ne expliqué na jafe-jafe yooyu de parce que activiste bi day nee na ñi ko xam dëgg xam nañ xel ne laalewul dara ak wàllum terrorisme la wax dëgg la de les si ko yéene kaay ne élection locale yi moom ci ajo la ñu jëm tribune yéene kaay ne bii mooy xaw ma ñaateelu yoon ñuy aj élection locale ya waaye kon dialogue bi moom ban la am looloo jaralaaj gis nga nguuru Macky Sall gi lée boo déggee ne ma ngay dialogue daal ngir calmer auto politique la la rek Barthélémy Dias ci 24 heures waaw ne dara na day moo waral li enquête yéene kaay ne moo di nguuru Macky Sall googe joxe nañu app de ne élection locale du ko weesu de foofee 27 février 2022 bu yeboo gars yi préparé tribune yéene kaay ne gis nga Macky day waaw am na ñenn ñoo xam ne dañ koo gëm ko lool topp ko wàllum fidèle ah. ak ñoo xam ne nag ay traître lañ ay warkat lañ ne te loolee Alioune Sall ci boppam di rakam ji day moo ko xam le Alioune Sall moo xam le ne ci manifestation yi lay waaw am na ay jegeñaale président Macky Sall yoo xam ne day jàppale wuñ ko de déedéet madame Daaf umu Thierno Mountaga Tall waaw nee na ñun dee tey lañ gën a dëggal ne président Macky Sall la ñu àndal ndaxte nag xoolal leen ma Macky Sall fi mu jëlee réew mi de ak fi ko yóbbu day mi d'accord dem jël poste ministre conseiller te eh, yow doonu député waaw complicité wu Macky Sall la de mais Issa Sall daa violé loi bi la wax les écoles yéen a kaay ne xam nga lan moo gën a dee professeur Issa Sall même bu dee joxe na poste député bi sax ki ko nar a remplacer ñoom ñaar comme bu roog soow Cheikh Tidiane Ndiaye la waa ji tudd tribune yéen ne xoolal ma oja lan la dessiné tey Macky Sall lay séddale soow ma de kër Idi mburoog soow kër Issa cere ak soow pur éwooy samba laas lancement première centrale électrique day West African Energy ah! privé national ba day dugg na na ca biir courant ba laa la wax ñoomaaroo ca Abdoulaye Dia Khadim Ba Lok Afrique ak Samuel Ahmed Sarr moo jiite gaaña Dakar Times de tey nag ma wax la yan kon ñoo gunge waa West African Energy googee General Electric la Kalek Energy AFC Afrique Bank Agribank Libération yéene kaa ne lu tolloog ñaari téeméer ak fanweer ci ay milliards la ñu dajale la wax kaay gi ne te xoolal ca jamono joojee a ah, ga jagga gële Forteza nga xam ne luy njiig ñooy njaax ñoo fa indi miti gi yor ay teenu gaz askan way de Amadou Diagne day coordonnateur union des forces de Pikine waaw nee na département u Pikine ci boppam tam dafa war a décoller maanaam daa war a dem Pikine ba waree dem du tey <laughs> waaye gis nga département Pikine nag ak lu ñu dem dem dem dem dem dem dem dem dem Amadou Diagne jàppal ne pétrole bii da ngeen cey bokk parce que suul gaz du ko tere te troisième mandat tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Bienvenue sur Salam Vision.